gërëm la président Macky Sall mi nga xam ne moo ñu wóolu neuf années neuf mois gërëm notre secrétaire général le président Moustapha Niass pour sa confiance et pour see conseils di wax ne lim ñu mës a dénk te Aliou Kébé wax ko léegi mooy saay su ne ñu fexe ba AFP di gën a yaatu gën a am doole kon ci loolu ngeen nekk tey ñu ngi leen ci félicité leen gërëm bu baax a baax a baax li wax na tey lii ngeen def am na solo mais occasion la pour ma fàttali sama bopp fàttali ku nekk ñun mooy ne réewu Sénégal déwén ak jàmm nar na commencé am pétrole ak gaz te bu ngeen seetloo réew yi nga xam ne ñooy am pétrole ak gaz day bëri fitna loolu nag waa réew mi ñoo koy may bunt fitna googu lañu ñu war a barrage naka lañ koy bare mooy ku nekk fa nga mënti nekk ngay homme politique ngay femme de ménage ngay commerçant ngay maçon ngay ingénieur loo mënti doon nga laxasaayu nekk benn nekk benn dànk pour bañ a xebel xelel benn fitna ci suñu réew loolu nag mën nañu ko ndax Sénégal c'est un grand peuple Sénégal yàgg na def élection Sénégal yàgg na relever ay défis kon lii nga xam ne yàlla jagleel nañu ko muy pétrole ak gaz bu ñu mobiliser woo takk ku nekk benn incha allah dina nekk njëriñu suñu réew ndax fii ak fukki at ak ñett muy 2035 Sénégal dinañ ko xayma ci ñaar fukki million ak juróomi doomu aadama mu mel ni dina am lu mat fukki million ak juróomi ay ndaw ndaw yoo xam ne war nañ leen tàggat ci wàllu formation ci wàllu métier war nañu wutal xëy kon loolu ay def yu mag a mag la dafay laaj ñi yëngu ci wàllu politique ñu indi ay solution mais du ñoom donc mais ñeneen ñi également dans les autres secteurs ñu gën a góorgóorlu takku xam ne c'est un défi qui est lourd c'est un défi important loolu tax ma ne lii ngeen def occasion la pour ñu seddoo ces conceptions la sant leen bu baax a baax gërëm leen vive le Sénégal vive l'Afrique jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu